ay faraid ak sunan mo ci am wàllu yalla droit amu ci devoir amu ci li ci am moy des recommandations ak des ordonnances bu dee ci cadre mujtama nag cadre société ki la yalla di nangu ñu tudd droit tudd devoir ak bu leen ñettel moy al adwar rôle dafa bari lu ñu ni droit ou la ci jigen te pour rôle bu muy rek la bu ni compétence ma na ca rôle bi du empêcher li ñu koy doyee bu boba mu joué ko wañewul dara donc gannaaw droit yi ak devoir yi rôle yooyu rek moo fi ne moo na jigéen nekk ministre na député na jigéen nekk syndicaliste yépp rôle société rek la amul sens sax biñ ko jox ba responsabilité bi ñu yenn góor ci mu yilif jigéen nekkul lu sax nekkul lu sax الرجال قوامون على النساء قوام بي قوام همتي لا قوام حالي يتي غور wa bi ma anfaqu min amwali góor gi tañ tañu subaak ngoon di dem di ñaq di indi ci kër gi li xew yépp lu dee ci kër gi moo ko rey mais kooku ci orma war nañ ko mën a nangu rek mu ni mani ñu ni ko am ah. ah. kooku ormaam la waaye itam yàlla itam bëgg na ñaan góor ñi bu ñu ko def atu ndax yittee ko jur waaye yëg sa bopp juru ko moo tax du tudd sax baatu cohabitation ci diggante boobu mais li mu euh, tudd mooy intégration ak indimage te mooy autorité boobu mu jox góor bis bu góor demee ba yëg ni jigéen ëpp na ko ca taxawaay na ko nangu moo indihun na libaasun mbubbum kilifteef ma nga daan sol bu ko nattee mu jot ko nangu ko mbubbum kilifteef ma nga daan sol bu ko nattee mu jot ko nangu ko waaye yow jigéen jiit antum yéen libaasul lahunna waaye mbub mi yow bu fekkee ni jot na la te wàññiwu la dara te yàqalu ko dara na ko nangu moom itam loolu la ñu integration bi ci boppam waaye mu nekk integration bu nga xam ne indimage al muxayyar indimage al musayyar du lu ñuy forcer kenn nag kenn ku ne ci choix yaa koy defal sa bopp nangu ko parce que loolu nangook sa conscience mooy gën a dal ci yow lu ñu la forcer waaw bu ko defee kon nag baatu mbubbum kilifteef mbubbum kilifteef ndegem moom lañuy yegg ba matuk jigéen di yegg ci ñu mën koo jël ci góor jox ko kon nag mbubbum kese kese ah warul jar mu ñàkk cër ba waaw ndax dégg wax bi wala déet koo xam ni mbubbum kilifteef boo demee ba mu jot la ñu nangu góor bàyyee la nga sol ko yaaxee kooku mbubbu bitim nii warul jar nga yàq ko te itam nag huwa alladi jaala lakum libaasan mais yuwaari sawaatikum fiigatul jama sawaatikum moo tax waar yi lu muy firi

du ñaaw mais boo ko tegee ci hawa mu ñaaw demal ci bazar yeeg yi seen société na mu tëdde jigéen du fa sol mbubbu presque et pourtant ñaawu fa parce que fitra la mais bu dee fii jigéen bu fi su woon rek ñëpp daw wuti sër parce que dootul nekk fitra hawa lay doon te yàlla bëgg na yu waari saw aatikum moo tax baatu fazaru zahira al ithmi wa batinahu yàlla nee na waxuma bàkkaaru biti bi kooku xam ngeen ko mais bu biir bi kenn xamul boobu laa bëgg ngeen def ci jom waaw kay bakkaru biir bi mooy yàlla yëg ni li ñëpp yi def ci biti sa xel a ngi ji li ñëppi def ci biti sa xel a ngi ci dafa am leneen loo ragal lu dul yàlla wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha te lu tax batinul ithm moo gën garaaw zahirul ithm moom laa leen wax sànq ni leen yàlla am na loo xam ne boo ko defee mëta digg daf koy wën mëtam boo ko tuddee ubudiya mu sax ci moom mais malheureusement boo ko tuddee seytaane rek yëf yi yàqu yàlla kat seytaane ma mën rek yëpp yàqu parce que wan nga ko ni ko seytaane mën na ci man loo mënul te kooku defi la متخون عبد القادر الجيلاني دي واخني جامبو دي في يو يالا داوكو جام بو دي في يو رك يالا داوكو تاي باج مو غيس بوبام وايي بو دي في سافان نياتي يالا دوكو ماي جام تخاو رك basiram di ko séen pour bala ko malayka yee bind mu baalu fi nabbi ibaadi anni ana alxafuru rahim moo tax baat bi ñu leen fi waxoon war a tënku ci xudu zinatakum inda kulli masjid kuy jëm ca jàkka ja te jàpp ni mbubb mi nga sol moo la fay jox daraja yàq nga ko kuy dem ca jàkka ja te jàpp ni mbubb mi nga sol moo la fay jox daraja yàq nga ko danga koy def ngir sa teraanga doomu aadama waaye dara ja nga fay am ak mbaax ga doo ko fa jëlee yaa ko fay yóbbu moom laa leen waxoon ni mbaax kenn du ko wuti ci jàkk dañ ko fay yóbbu texe kenn du ko wuti aljanna dañ ko fay yóbbu mais yàlla jaaxle xamulu ñu bari du ñu seetlu aaya alhaakumu takaaso alhaakumu takaaso xatta zurtum sax almaqaabir يعني يلهيكم التكاثر حتى وأنتم في المقابر إيه <laughs> يلا وانا ونبريله ونبريله كم تهنغ ديكو واني بديكو وانا كي بامير دولي جي جم di wane bari le ba di ko wane ci bàmmeel dem fekk àll bu kenn xamul tabax ko wut marbre ni bu sama famille dee ñu suul leen fii di tiitaru gën la jaru ko jaru ko gën la sawuf bis nga ci ëllëg taalamuuna ngeen di xam ni jaru ko nag jarul ba yu bari jarul jabar yu bari jarul armoire yu fees dal l'essentiel wa thiyaabaka fa tahir wa thiyaabaka tahir mbub mu mi ci biti mbub mu set mi ci biti fexeel ba mu seede mbub mi ci biir mbubu mi ci biti rafet nga sañse yàlla neena bala mo neex mbubb mu set mi ci biti han mana sédé seede mi ci biir lu mel noonu moom la yàlla joxe ci image bu daw yaram ci falamma tawajjaha tilqaa madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawaa sabil walamma warada maa madyan wajada alayhi ummatan ummatan min annaas yasqawna waaye wa wajada min dunihim imraatayn tadudaan li yëngal Moussa ba mbooloo mu toll noonu daje ca teen ba mu tànn ca ñaari jigéen rek rootal leen li ko yëngal lan la parce que yow gamu gis te jigen ya bokkul ak gaj ba mu gis te ña ca def tam na lo xamni ni yaram a koy yëg waaye la tax mu gëm ni jar nako ko fa jaat ihdahuma tamshi ala istihya ca la xamee ni ndeke la mu sonu jar nako إحداهما تمشي على استحياء لأن الجدين بنيو بنغا خمي يوغ أكرسغ سنل نغور واو يوا كرسغ سنل غور نخ لوم لا فونكو خيبكو qaalat inna abi yad'uuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana c'est très simple xoolal boobu baat ci yar au lieu ñëw li ko waaye kaa ñu dem sunu kër invité naa la déedéet bu doon ci sunu jamono lonk ko waaye kaa ñu dem invité naa la déedéet ولك تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أه. باين ونكت ما دابوسي لا ndax li nga ñu defal fi nga ñu ko defalé ku ko defal njabootu jàmbur mu am lu waaye moom it ba mu yegsee Shuayb bu teg ko bët lu ca tegu inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya haatayn naka lu ko xool rek xam ni kii kuy wutal sa dom borom kër waaye boobu mu bañ laa rom mu ni Moussa ci ñaan ñi kenn nga jël ko daa am na lu ma yëg daa am na lu ma fas ونقول شرطي لك فخير بروح للنيل يو يو موي لي ام صلو كون مو دالو واتي لي نلين واخون ني كين كون لا غاي گني سا مروم بوي سانغو دوكو سوم كون نا اما من عطى ليس شيء يلا دال موي ملك ليس موتام موني جيجين

te comme di taskunu ilayha dana la amal solo daal di wëlbatiku ni góor ne ko bàyyil bëccëg séddal ma ndax bu la séddee yitte am